gannaaw ndaje bu mag bi mu wote won ci ndortalu campagne électorale bi ki di bay juuf de responsable politique APR ci mbaawu mu ngi woyal di doxal programme am ci ndaje mag askan wi daf leen di fàttali saa su li waral askan wi war a jàppale président Macky Sall daal di ko jox député yu mat sëkk ndax mu mën a wëyal ay programme ci dox mbokk moomu dafa daal di tamu seeti ay kilifa gannaaw mbooloo jigéen ñi ak ndaw yi tey ji nag dafa fas yéene dem seeti kilifa yi nga xam ne ñoo yeewoo fii ci Mbao tey ji nag kilifa gi ko dalal moo di Ngalla Diop. da ci ñu tànn. pour seet si leen pour aussi waxtaan ak yéen donc yow moom damay sawar ci wax ci yow damay sawar aussi pour ñëw fii waaw ndax ki la may soxna moom waaw kooku moom desul la dara dara dara dara te yàlla def aussi nga nekk sama xarit waaw nga nekk sama xarit. ma am sama mbokk mi di ñoxo baay aussi di yëngatu ci politique bi di def lu baax di ko def biir mbaaw ma ànd ak moom di ci liggéey waaw te comme aussi dañ nekk ci campagne di sakku ay voix pour mën a gën a dooleel président mu mën a am majorité assemblée nationale parce que président am majorité mooy ndamam mooy suñu ndam ñun ñi te mooy te mooy taxit liggéey bi ñu sumb ak gox bi ñu mën ko mottali waaw boobu ba léegi ñu ngi ñëw ci koñ bi ñu ngi fi ñëw di waxtaan ak jigéen ñi di waxtaan ak ndaw ñi waaw donc tey moom mënu moo ñu woon bañ a ñëw ndo fii njóobeen te duma agsi fii ci yow quoi waaw di la taalal suñuy loxo pour euh, nga defal ñu ñaan yàlla may ñu ndam waaye it nga jàppale ñu yow sa bopp ak waa kër gi ci ba le 30 incha allah ndam li féete ci benn Bokk Yaakaar bi nga xam ne président Macky moo ko samp waaw vraiment daal loolu moo ñu fi indi woon donc euh, joxa bàyyi ngi nii nag waaw xam naa ko ko xamul it dégg nga ko waaw ku ko xamul dégg nga ko donc walla wallaay wallaay euh, kon ñu ngi lay nuyu Euh, yow ak sa njaboot yëpp euh, di la jox sa wàccuwaay di am mbégte loolu nag ñëw si kër gi ak ni ñu teeroo teeroo bu yaatu bi macha allah sa njaboot ñeent fekkee xam nañ ne wax dëgg yàlla am nañ yar te kër gi tamit këru këru njaboot la dëgg yàlla ñu lay ñaanal yàlla nga yàgg si kanamu njaboot gi yàlla may la wér euh, wax ji wax ji nag mooy dox kóllëre rek. ndax kóllëre bi nga xam ne moom lañ seq fii moom lañ seq si kaw tamit ak président Macky Sall te nit yaakaar na am na foo xam ne su fo tollee su soxla la mu soxla defe naa ne jafewuñu mooy mottali kóllëre boobu rek ndaxte am na lu ñu sant si njaboot gi te ñu ngi si waslu àq te jàpp naa ne njaboot bi tamit euh, jëpp wuñu ndax ubbi nañ suñu bunt ubbi nañ suñu xool suñu nopp bu ñu suñu poste tamit wax dëgg yàlla euh, nañu ko président Macky Sall sant sa mission yëpp ñu denk ndax gouvernement moom foo dem fekk ko fa lépp luñ ci mën ñu ngi koy defal suñu bopp. ba mu jotee réew mi ba léegi wax dëgg yàlla jig na Sénégal ña wax naa réew mi dafa yàqu nañ toog ba kenn dootu fay fonctionnaire yi wala courant dootu fi am wala ndox dootu fi am defe naa loolu yëpp ay fàttaliku la euh, am na yéen nag tey soo duggee si àll bi. xëy na ñun sax euh, yëguñu ko bu baax waaye si àll bi soo duggee tey am na lu bari loo xam ne def na ko fa si wàllu koom ba ñu bari gisee seen bopp mu ngi koy indi tamit si biir dëkk bi ndaxte mbaaw bi si boppam toog nañu mun ne dugal na ko si programme Promoville loolu mooy lépp loo xam ne assainissement la fii la taxaw waxu Pikine lépp loo xam ne assainissement la ak coono jafe-jafe yoo xam ne nii ñaa ngi koy dund bëgg na ko fa jëlee rawatina lam ñu defal. muy suñu këru diine yi defe naa ne euh, benn président si Sénégal ñi fi jaar yëpp la mu def ak la mu jox këru diine yi def naa kenn musu ko def su ko defee nag ñun la ko defal ndax ñun ñooy taalibe ñoom ñooy suñu suñuy wasila waaw kon dafa mel ni wax dëgg yàlla kooku am na yéene soxnaam tamit am na yéene ndax barki dem rek samedi ak dimanche la jël benn plateau médical boo xam ne amul fenn si biir mbaaw docteur yooyu ku ñu faj jox la garab su aajo ñu yóbbu la hôpital su ajo sax ñu yóbbu la bitim réew te lépp seen yërmande lu mel noonu nag jafe noonu ñu indi ko ba say tànk na def si lu la neex wax dëgg yàlla xam nañ ne première dame tamit mu ngi jàppale borom këram kon ñu bëgg rek ngeen ñaanal leen liggéey bi nga xam ne ak yéene bi nga xam ne tey ji ñoom dañ ci taxaw euh, ñu mottali ko ndaxte damay faral di wax ne assemblée nationale moom mooy làmmuñu bopp. bopp bi mooy président te nit doo ko jox bopp ro ci lamiñ euh, yéene boobu mu am si Sénégal ñu jàppale ko rek yàggul yàlla mottali liggéeyam te jàppale bi mooy yéen yi nga xam ne yéen a njaboot gi ngeen waxtaan ak njaboot gi xamal leen ne saay saay yi bari nañ fi lu mat ñeent fukki parti ak juróom-ñaar mel ñeent fukki xel ak juróom euh, moo ko jëkk kon ñu leen ñaan rek euh, képp koo xam ne kilifa la seen naataango yi ndaxte nag yaakaar naa ne loo leen wax ñu dégg sa wax mooy ëpp poids que beneen wax yow la nga gëm ba xam ne war nga ñu jàppale war nga jàppale président Macky Sall la nekk sa xol yow tàbb ko xol rek ñu xam ne euh, njëriñu réew mi njëriñu askan bi la te dañ ci war a taxaw te taxaw bi mooy ku nekk nga wut kart soo jëlee sa kart su bés ba jotee si yar ak teggin nga dem jël li nga xamne moy mooy lis benn bokk yaakaar def na fas bi mom ken ken ken ken ken ken reeru ko mbir waaw dañu na fas na lu mu daw daw daw mom da ngay làbbali rek waaw te fofu lañ toll nak assemblée nationale da fi toll ni mom moy làbbali bi ñuy ñaan yalla dal suñu fa eggee ngeen ñeex njabot gi ñepp xey dem vote ji buñ ko sa te su dam loolu ñëwee fokk na né ku la dig ndékki jox lako soo ne añ baa ngi ñëw war nga ko gëm waaw te fi mu commencé déjà neex na ba pare te xam naa ne fii moom gëjuñu fi te kenn jëppuwuñu fi waaw kon li si des nag xel moo koy mottali ñuy sant ñëpp di sakku ñaan yàlla may ñu ndam si mbir mi may ndam président Macky Sall waaye tamit yéen ngeen mun a jëriñoo ndam loolu yëpp si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon si tur ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant maaleykum maa ngi nooyu ñëpp di rafetlu itam seen ñëw fii Euh, ndax juuf ñoo bàyyi xam naa la dem mi fële ci mairie ba bi gan yu fi mos a ñëw nga ñëw la ngay wax maa ngi toog ndax man délégué quartier la Ablaye Pouy suma jarbaat la ma yaayam ay doomi ndey lañu ah ndaw kële toog ci gannaaw mbëru ah dafa fekk nag lu la bett rek daf lay man mais li bettu ma parce que man ba mu yégee ne bi abla bu la boo boo Ablaye Pouy Moussane oote nga ñëw fa la ngay wax dégg naa ko mm-hmm. ah léegi nag yàlla dafa man Ablaye suma jarbaat la nan laa koy contrer fu mu aw fa laay aw mm-hmm. yow it ma déggale ana jaañ <laughs> mu ne ma Diouf ñoxo bay ku mat a jàppale la nuroo laa du ma tudda tur <laughs> ay tur lu ñuy doxal parce que kii day def lu am fayda du yaa ma waxoon loolu nit la ku wóor ku wér ko xam ne nii bu ngeen jaanoo dinga nga xam ne nit ku wér la loolu jaan ñu te jaan ñii yàgg naa ko xam ah ñi la dar ñëpp sumay mbokk lañu Habib mii man maa ko may soxna góor gi xam naa ko bu baax sama sama goro la ndax ah, sama suma jarbaat mu sëy ci këram man nag du ma joxe bopp di bàyyi dara noonu man Ablaye Pouye laa àndal te fu mu bëgg foofu lay far moom moom moom moo toog meeting mbaagu ndaw mu ne dina jàppale borom réew mi ba mu gagné yi cela ne te duma ci jóg te su may njaboot dañ ci ànd waaw bu soobee kii maye man dinaa an dinaa leen wax parce que lii jafe na jafe na déplacement bi wax dëgg yàlla seeral na sama xol mais man ku ma xam xam ni loolu lay def te ku ma déggal it loolu def parce que weddi gis bokkut fi ah ñoo baay yàgg naa xam maa ngi tey laa tey laa la gis ni nu toog mais man doomi Nogay ture boobu maram keroog ba muy may doomam maa nga foon noo dende nii maa yow lañu wax lépp dégg dégg naa ko ba mais nag ah, tey jii la yëf yi eh, leer bu soobee yàlla du ma kuy or du ma or eh, lii mën a wax ni su bés baa foofu lay sànni te ñi may àndal sumay wax kër yëpp dañu wate ñëpp dañu wate waaye man xam naa ne fi ma aw la ñuy aw tey lii nga wax dégg naa ko la nga waxoon ca mairie ba fële maa ngi toog maa ngi toog jege lool ndax ab lay na ma waaw waaw yàlla na yàlla def na li nga waxit si meetingu mbaawu ndaw boobu maa ngi toog ci kaw tiim leen loolu doy na ma te bu ma doyul woon dama nan naan doy ma mais nag li ma ne doy na ma te di nga xam ne doy na ma ah incha allah dinaa nekk si say si say nit si soobee yàlla am parce que ñii ma gis mbëroo nga ne la ñoo bokk ndey mburu faal maa moom ñoo bokk ndey abib mi maa may jabar ak ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñi la topp ñëpp damu leen xam ma xam ne tam nit ku baax nga ndax weddi gis bokku si may dëgg rek ñoo ko bàyyi ñoo jaañ mi moo ma ko leeral ab laa puy ah man moom laa àndal li ma jox ci politique ak li may defal ak ma ku ko ma defal te samay mbokk falu nañu fi sama baat sa kaw man sama yoon man ragaluma dara parce que <laughs> du ma tàllal kenn loxo fatiha salaatul fatiha ayatul kursi lexlaas falaxe naas ñu dugal suñu aajo yëpp nag mhm. ba Macky Sall gagne élection ñoom ñoo bàyyi gën a yaatu na dem sa kaw amiin الله لا اله الا هو خير لا تخصص نفسه من الذي يصوم عنده الا بما يظلم وما خلفه ولا يغيثون بشيء الا ما سوى كل شيء ولا ولا يغلم قل ولا واحد الله قل سبحان الله من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا قل تواصل برب الناس مالك الناس لا يناس من شر وسواس الناس إلا سيروا في كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد وسلم إن أصحاب الجنة اليوم فاكهون وأسواجهم في سلال اللهم عليكم تأكلون فاكهة ولهم ما يدعون salaamun qawlan min rabbin rahim salaamun qawlan min rabbin salaamun qawlan min rabbin وامتصوا اليوم ايها المؤمنون اللهم اليكم جبان ادم جبان ادم جبان ادم لا تخزون الشيطان امين امين آمين آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام الله والملك الخير والأمان والأمان المرسلين Thank